mbokk yi asalaamaaleykum mbégteex bànneex la ñuy am alarba bu jot su 28h jotee ci Walf TV leeru jamono ñuy feggoog yéen si seen émission bi léegi di Selebe Yoon Selebe Yoon ñuy pencoo lépp loo xamante ne dafa yemook actualité ay bés bi ñu kii dalal ñoo xamante ne seen xam-xam day màcc jëm ca fànn boobu tey euh, suñu plateau ñu am fi euh, Bocar Diong fare ci Alliance pour la République di milité fële ca Parcelles Assainies ak ki nga xamante ne moo di Babacar Mbaye Mouskad fare ci Parti démocratique euh, sénégalais Sénégalais ñu fas yéene pencoo lépp loo xamante ne rek dafay soxal doxalinu li nga xamante ne moom moo di réew mi ca fànn euh, bu mu mën a doon waaye itam euh, tey ci àllarba gi euh, Dakar enregistré cest premières pluies ñuy euh, ñaan suñu borom mu doon euh, nawet euh, gu barkeel nawet goo xamante ne jàmm lay lal ñi nga xamante ne ñooy askan wi yëpp rawatina suñu mbokku baykat yi jëriñoo ko ñu def lu dul soobu ci li nga xamante ne moom moo di seen émission Selebe Yoon ñu dalal ñi nga xamante ne moom la ñu bokkal plateau bi Bokar maa ngi lay nuyu. voilà maa ngi lay fay di le ci seen invitation plateau bi. am contentement aussi di partager plateau bi ak frère un ami mhm. Babacar Mbaye j'espère que ni dinañu am un débat de haut niveau un débat intéressant merci beaucoup euh, Bokar euh, Babacar euh, ñu ngi lay nuyu yow tamit maa ngi lay fay di la nuyu di la ziar di ziar téléspectateur Walfadjri yëpp di nuyu son excellence le secrétaire général maître Abdoulaye Wade secrétaire général du parti démocratique sénégalais le candidat Karim Meïssa ak tous les membre du comité directeur les karimistes et les sympathisants du parti démocratique sénégalais di jong di rafetlu lool jataay bi man ak moom ndax ci man la nekkoon PDS mu génn dem APR quoi <laughs> alliance pour la perte de la république Bocar maa lay ñu def lu dul euh, soobu si waxtaan bi ay ba si li nga xamante ne ça fait euh, un bon bout de temps moom mooy euh, lëmbee waxtaan bi ci place publique bi ñu bëri di ko joxkat bi wante mi ngi aaju ci mbirum Prodac ñu joxoñoon ci baaraamu tuuma ki nga xamante ne moo di Mame Mbaye mais au delà de li nga xamante ne moom moo di problème boobu sax question bi posé wu moo di ne la gestion gestion de nos finances publiques rawatina les corps de contrôle euh, yi nga xamante ne teg nañ ko ci biir réew mi pour li ni bañ am et pourtant sa continue euh, ñuy nemmeeku ñuy jiiñ ay kilifa wàllub luubal ak euh, yi ni mel tey Bokar mbir mi àgg na benn niveau boo xamante ne Mame Mbaye Niang génn na di seetal boppam naam mais côté politique bi rek lañ ko mën a jàppee mais man ma question day ñëw ci corps de contrôle yi nga xamante ne njiitu réew mi teg na ko fi déjà pour li wala bañ a am mais on a l'impression que ne euh, ñi nga xamante ne jàpp nañu ne dañoo sàcc ginaar ñooñ la ñuy topp ñi sàcc ay nag ak xar ñu bàyyi leen fi. bon voilà merci beaucoup ci laaj bi nga ma laaj ci ma ci tontu da nga may may occasion ma profité aussi aussi jaale waa Parcelles Assainies parce que coordonnateur du réseau des enseignants bu APR bu Parcelles Assainies muy Ngor fay moo wàññeeku démb mu doon naqar tiis bu mag ci parcelle mhm. ñëpp di ko jaal di ko jaal président de la république di ko jaal enseignant yi di ko jaal bépp waa Parcelles Assainies ak ñëpp di fa gaañ bon wàllu question bi nga ma posé c'est vrai que président de la république teg na fi ay mécanismes yoo xamante ni tey am nañu une bonne gestion des finances publiques ci wàllu wu ne parce que aussi boo ko xoolee par rapport ak régime précédent yi tey ji bu ñu tuddee lépp li nga xamante ni luubal la wala problème la ci finance publique rek dafay doon lu lu jaaxal ñëpp d'abord parce que euh, le président dafa marqué li nga xamante ni tey par rapport ak régime précédent yi bëriwul fii lu ñu fiy tudd ay luubal ak ay xaalis yu ñu jaarale fu mu warul jaar boo ko xoolee nag euh, ci wàllu corps de contrôle état yi li ci gën a bëri day fekk tout le temps soit ñu délégué benn inspection ci wàllu li nga xamante ne am na gestion boo xamante ni am na ci ay nébulosité wala l'État demandé ko mais dañuy jàpp ni l'IGE dafa nekk un corps de contrôle de l'État totalement indépendant nga xamante ni dafa am calendrier di dem di saytu ay institution yi nga xamante ni am nañu yor nañu xaalisu askan bi donc de ce point de vue ñoom parfois ñooy xool le président de la République mais bu loolu yëpp yëpp weesoo jàpp nañu ne aussi président bi mu fi teg nag il était de bonne foi te jusqu'à présent mi ngi nekk ci bonne foi boobu mu nekk parce que finance publique yi assainir nañ leen te aussi teg na fi li nga xamante ni lu bees la muy ñi nga xamante ni ñëpp dañuy gérer finance publique yi dañuy gérer alalu askan bi ci wàllu jumtukaay boo xam ne dépassé na milliard am nañu obligation d'abord ñu présenter seen patrimoine loolu yëpp bokk na ci ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ni wone na volonté président ci gouvernance transparente bi mu nga xam ne moom la instauré te ba léegi gisuñu lu ci amul mhm. kaaw Prodac bi c'est vrai que moo nekk à l'actualité c'est heureusement que ki nga xamante ni moom la ko accusé nommément muy le ministre et notre camarade Mame Mbaye leeral na ko ci kanamu askan bi expliqué na effectivement que ni moom nekkul woon ordinateur u yi te moom itamit signewul woon ay chèque moom itamit laalul xaalis mais tey jii bokk ah. moom moo yilif ñi nga xamante ni mm-hmm. ñoom ñoo demoon wala ñoom ñoo amoon contact. parce que am na responsabilité morale. mais oh. au-delà de loolu tey jii Mame euh, en tant que autorité en tant que ministre de la République pour mettre à l'aise euh, corps de contrôle boobu est-ce que pour mettre à l'aise également la justice mm. est que il devait pas attendre que la justice se prononce d'abord mhm. mu doog a jug moom pour le côté politique mhm. pour se prononcer là-dessus bon Mame Mbaye dañuy saluer li nga xam ne posé ko comme acte man en tant que citoyen sax laay wax parce que aussi gor ñu la taxalee wala ñu jiñ la ci lu nga xamante ni dafa nekk alalu mbooloo nga tëb rek démissionné loolu c'est un acte parce que du faire la yoo xamante ni bëriwu fi autorité euh, africaine déjà pour mu démissionné rek problème la donc bu démissionné déjà loolu acte la boo xamante ni mën na ko mën na wane ni bonne foi am donte effectivement li nga xamante ni yow wax nga ko mu di que acte yi nga xamante ni posé na ko muy mu muy acte bi nga jugé yow politique alors que honorabilité am dépassé na le cadre politique parce que bu la président président boo amee ci yow confiance mu jox la nomination jox la nomination par décret te et puis mu nekk des projets yoo xamante ni nit ñi dañ ci am yaakaar parce que aussi mu toucher directement l'emploi de la jeunesse donc tey doxalin yi nga xam ne boobu ba léegi affaire bi bi mu amee ba léegi bi ñu koy tudd ba léegi encore que ni ay information la yoo xam ne à travers la presse lañ ko yéegee encore que ni wax na ni ne document yi nga xamante ni l'IGF muy l' inspection générale des finances moom la mettre moom la ñu vers la presse amul benn cachet bu wone sur la bonne foi même que ni si l' moo joxe document yooyu donc assez de preuves moom ci benn émission télévision wax na ko te ñi ko déglu tamit jàpp nañu ne wax dëgg fa yàlla góor mënul weesu foofu. dina ñuy ñëwaat euh, ci point boobu tey euh, Babacar euh, ñu bëri ci askan wi lecture bi ñu am ca fànn boobu moo di ne dafa am deux poids deux mesures dafa am ñoo xamante ne par exemple ñu ngi leen di toppee moins que ça moom ñu koy toppee lii te pourtant ñu jàpp ne. itam euh, Bokar mi ngi koy wax léegi si wàllu démission bi ñëpp jàpp ne démission de façade la ndax démission boo xamante ne on l'a fait un dimanche et ça s'est réglé à la maison du mm-hmm. loo xamante ne c'est républicain mais c'était surtout familial waaw xam nga Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ne situation bu am rek il faut ñu jàngat en arrière ndax boo xoolee corps de contrôle yi ngay tudd mooy autorité ARMP autorité de régulation des marché publics IG e, inspection générale d'État ARMP DCMP yooyu yëpp ay code code yoo xam ci jamono Abdoulaye ci lañ koy installé pour wane bonne gouvernance te ci jamono Abdoulaye waat am na ci ñoo xamante ne code de contrôle woon na leen jël ci ñaari exemple rek muy Bayla Wane ak mu Modibo Diop bi yoroon Azer Bayla Wane bi nga xam moom moo yoroon li nga xamante mooy Lonase aw euh, dégg nga sama awa Diop Ndiaye awa awa awa Kudu Ndiaye moom tamit ci la bokkoon donc mu amoon rapport yoo xam ne daf leen épinglé woon donc tey ji au moins Ablaye Wade amoon na audace jël ñooñu euh, procureur autosaisir pour jël leen ñu dem ci yoon Macky Sall ñëw ne moom kat wax dëgg yàlla dafa créer benn CREI pour waa PDS créer nag pour waa APR mu menacé leen mu ne leen du ma doom duma ma làkk doom waaye bi ne ba ci biir dañoo xam ne loolu yëpp Macky Sall waxoon fourage dandi xel dem ay naxaate la ay wuruj la ay kàcc la ay mensonge d'état la yoo xamante ne mënatoo koo qualifier parce que li ko waral maanaam mooy que ne à chaque fois rapport génn soit muy ARMP wala IGE dañu naan kat man maay Macky Sall maay président de la République dossier yi ci man lay ñëw su ma ko téyee dinaa xool ban moom ma ci arrangé ma teg ko yi ma ci arrangé ba jël sama coonc ma teg ko ci moo ko wax ñëpp dégg donc tey loolu mu def noonu mooy war ne moom mooy bu mooy bi mooy xool ko neex mu yóbbu la xalifa Sall ñoo taxaw accuser ko injustement ci presque loo xam matul deux milliards tey mbay Prodac muy Mame Mbaye Niang euh, nekk koo xamante ne jiiñ nañ ko ne dafa détourné valeur de presque mën nga ne environ boo ko totalé mën na jël vingt sept milliards donc tey loolu mu nekk loo xamante ne lu ñaaw la démission boo xamante ne démission farce la damay démissionné pour kilifa gi nga xam ne voilà def naa benn action tey jii euh, procureur ci bopp moo doon auto saisiru sept milliards nga xool équivalence boobu mu taxaw tey leer parce que xalifa Sall mu jooyanti yëngalaat tuuti xoolaat ñu gën a rafetalaat doxalin bi nga xam moom nga pour maanaam koppat ni muy génnee mhm. mais kii tey dañoo teg ni lii kat duñ ko calculer vingt six milliards génn na ci keesu état bi ñu ne supposé jëm na ci Mame Mbaye tey ji man am na koo xam ne nettali na ma donc su loolu boo dégloo li mu la nettalee da nga naan automatiquement kon li mbay Prodac def moom moo am parce que dem na ci moom ci audience du ma tudd turam nag bi ne demee ci moom waxtaan nañ diw looy liggéey mu ne ko man ci nangam laa yëngut bàyyil fa nga nekk nga ñëw ci ñun ñaata nga soxla supposé mu ne ko dix millions mu ne gars jox leen ko 30 millions su demee ba mënul fay président la ñuy dem ne ko gars yi lebal la ñu mënu ñoo fay ñu effacé bor bi man information nit wax na ma ko donc tey loolu boo ko gisee kon peut-être mën nañoo créer ay entreprise fictive yoo xamante ji pour récupérer xaalis la ñoom moom bu ne moom si ñaari du génn xaalis vraiment tey ak moom boo ko dégloo ni muy waxee nga xam ne même bu fekkee ne il dit que un cadre et c' est un intérêt il est très limité mais tey lan nga jàpp ne problème euh, bi euh, fan lay mu mujj bi ñu gisee tournure yu mu tàmbalee di jël ndax yaakaar nga ne dina am issue bu fekkee ne démissionné na on n'a pas accepté euh, sa démission entre guillemets euh, tey bu fekkee ne moom mi ngi jug di wax te justice waxagul le temps de la justice ak le temps des politiques du benn tey ndax yaakaar nga ne affaire bi dina am cappaandaw dina am lu ñu leeral askan wi ci xaalis boobu maanaam man tout le temps que dama doon naw Mame Mbaye bu toogee ci plateau yi di wax ni diwkat dañuy leeral lafa amoon amatul dañoo bëgg a sellal alalu askan bi code du contrôle gestion sobre et vertueuse tey ñu koy jiñ loolu kon da ngay wax ni kon moom la ma doon digle digle sangaay te sanguwuloo tey man li ma ko doon ñaan mooy que ni accusé nañ ko même bu ko président Macky Sall newaatoon dama lay continuer sa sa ministère moom jobam waroon tey taxaw démissionné pour setal boppam mais duñ ko def Khalifa Sall Karim wadd ak ñeneen jiñ nañ leen loo xamante ne lu loo xamante ne vraiment tegul fenn parce que ay candidat lañ yoo xamante ne taxaw nañ pour jàmmaloo ak Macky tey moom may may ñaar su génnoon ne dama bëgg nekk candidat dina am problème démission boo xam bi nga ko defee xamuñu ndax reconduire nañ wala déet demuloon conseil des ministres bi ci toppoon kenn xamul foo nekk Macky Sall li jënd ko ci benn kër toog waxtaana yow nga dellu si waat donc yow démissionné wuloo bàyyiwuloo donc Macky Sall di jouer dans le clair obscur vraiment mu nekk loo xam ne vraiment rafetul ci askan bi mhm. nit ko xam ne à chaque fois yaa ngi toog di xas Karim Meïssa Wade di xas Khalifa Sall di joxe bon exemple ci plateau télé su fekkente liñ koy ji moo ko def il doit demander des excuses publiques à Karim Meïssa Wade ak ki nga xam moom mooy Khalifa Sall. Mhm. Euh, tey Bokar euh, pour euh, problème yi nga xamante ne chaque fois ñu ngi koy dégg ci wàllu luubal yeeg yi ni mel est-ce que tey corps de contrôle yooyu nga xamante ne samp nañ leen pour ñu am benn autonomie bi est-ce que tey jii waxul jot ñu bàyyi di rendre compte ki nga xamante ne moo di njiitu réew mi et que le dernier mot lui revient. bon. loolu jàpp naa ni warul mën a fonctionner noonu dans une démocratie normale te avec des institutions fortes parce que aussi corps de contrôle seen liggéey la ñuy def en toute autonomie et que président de la république aussi pouvoir discrétionnaire am moo ko permettre aussi constitution bi permettre ko mu war a mën a jël ay dogal et que aussi jàpp nañu ne justice bi indépendante bi fi nekk à tout moment procureur mën a autosaisiru ci dossier yenn yi mais est-ce que ah, ces corps de contrôle sont autonomes euh, Bokar su ñu gisee ne même ñoom su ñu defee seen liggéey ba ci càppaandaw li si njiitu réew mi la ñuy dem su njiitu réew mi nag moom mooy xool ban dossier tey jii moom la war a transmettre au procureur pour mu euh, wéyal liggéey bi wala déet donc est-ce que tey doxalin boobu warul am coppite ñooñu autonome ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey en directe collaboration ak ñi nga xamante ne moo di la justice. xam nga déjà maa ngi lay jox kaawu IGE en général moom mooy corps de contrôle bi nga xamante ni moom mooy gën a wàcc sur le terrain di inspecter institution publique yi IGE calendrier personnel am propre lay fonctionner moo koy permettre muy wàcc di dem di saytu yenn agence yi ak yenn administration yi encore que résultat yi nga xam ne moom mooy rapport am su ko joxee le président de la république pouvoir discrétionnaire am mais au-delà même de son pouvoir discrétionnaire constitution bi moo ko permettre loolu mais jàpp naa ni aussi le procureur mën na autosaisir à chaque fois mais amalgame parfois dina am dans la mesure où ay information dañuy ébruité wu à travers la presse wala ay information presse bi dañ koy am. fu muy jóge aussi si autorité yooyu lay jógee. dans le traitement de ces informations lu ci gën a gën a bëri. vraiment du méngoog li am parce que aussi am na des rapports confidentiels yoo xamante ne mënul nekk à la place publique yoo xam ne ay supposition lay nekk ay préjugés lay nekk moom lay lu ci gën a bëri nit ñi di wax. mais am na ci rapport yoo xamante ne day gën ci presse bi virgule du ci changé loolu mooy li nga xamante ne moo am et c'est une certaine presse qui en dispose. waaw loolu mun na nekk d'accord. amul mën na nekk nekk na. non voilà mën <laughs> uh-huh. euh. mais ce qui est évident. moo di que ni président moo war a juger de la nécessité wala de l'obligation même de s'autosaisir de de saisir la justice de se le procureur sax ci boppam moom mën na autosaisir à tout moment mais il a arrivé il est arrivé des moments où le président wax na ko te boobu ba léegi mu ngi koy doxal il n'a jamais protégé personne dafi nag mhm. dossier yoo xam ne les gens en ont parlé c'est vrai que l'État n'a pas communiqué dessus mais man jàpp naa ni ba léegi noonu ils n'ont pas fauté parce que bu ñu fauté woon man jàpp naa ni président du def kumba am ndey ak kumba amul ndey te nañu comparer li ñu war a mën a comparer le cas de Karim wala le cas du maire Khalifa Sall bu ko comparer ak le cas de Mame Mbaye je pense que aussi ça devient des problèmes crypto personnels parce que mbir mi yegagul foofu ay supposition la ñu am te ki nga xam ne moom accusé nañ ko nommément expliqué na sénégalais yëpp déglu ko te li mu expliqué xel mën na kaa dégg parce que moom ordonnéwul ay dépenses laalu dépense yi te rapportu ARMP yi ñoom seen bopp ñoom ñoo confirmer valide marché yi mu def retour au niveau du ministère concerné bi nga xam ne moo yore les fonds les finances publiques donc à ce niveau luubal bi ñuy wax su fekkee ne dans la non exécution wala dans l'exécution même des marchés am na ay problème que la justice s'autosaisisse mm-hmm. <laughs> le concerné si boppam bañu loolu et c'est ce qu'il veut d'ailleurs moom wane na amplement que ni laqatuwul derrière le président de la mais est-ce que du sorti yi yëpp ak anam gi ni mu demee yëpp est-ce que du ay xëbalaate la. du xëbalaate yoo xamante ne pour euh, voilà ñu jël wax ji. teg ko ci suuf est-ce que yow yaakaar nga ne mbir mi euh, dina àgg euh, ci cappaandaw li ba askan wi. xam àgg ci cappaandaw yi bu xam nga parfois aussi dinañu def dans le sensationnel ñu tel ñu ne dàmm na mais man jàpp naa ni tey jii. mi ma gise le ministre Mame Mbaye Niang c'est pas mon ami da nga koy gis rek comme tout Sénégalais ah c'est un ministre que je respecte beaucoup parce que aussi am na ay valeurs yu mu incarné tey ji jàpp naa ni bu fekkonte ni il a fauté du ko jaral mu toogaat fi mu nekk ce que n'a pas pu comprendre te muy dëgg comment dans une équipe gouvernementale problème bi yegg fi mu yegg des gens ont fait fuiter des gens n'ont pas pris leur responsabilité pour dire la vérité Parce que c'est cette vérité que certains n'ont pas voulu dire. La vérité, moi, il n'a pas fauté. D'accord, mais au-delà de la personne de Mambay Niang Babacar euh, comme euh, ni ma ko waxee Bokar ci corps de contrôle yooyu gis nañu ne ñoom euh, suñu paree si cappaandaw la njiitu réew mi est-ce que foofu conflit d'intérêt du fa taxaw ba nga xamante ne li waroon leer yëpp du leer te dañu waxoon ne une gestion sobre et vertueuse mu mel ni euh, loolu àndul ak dóor doom làq doom maanaam boo xoolee actuellement bu dee IGE wala ARMP à chaque fois bu ñu defee rapport mën nga ne euh, organisme wala boog domaine bi wala ministère bi wala direction bi la ëpp li muy épinglé muy pour autonome de Dakar poste maanaam mooy Cheikh Kanté bi mu fa nekkee post bi fa eh, Siré Dia soo ñëwee nga dem kuddu Cheikh Omar Anne même temps yi dégg na ñu ne ministère des sports Matar Ba am na ay détournement yu fa am ministère de l'économie et des finance ministère de l'éducation nationale et j'en passe et j'en passe y a énormément vraiment actuellement Macky Sall xam na ni gars yi fi nekk nii le maximum d'argent ñu ngi koy détourner via des canaux yoo xamante ne ñoom ñoo xam ne ñu koy dugalee pour weexal xaalis boobu mu mën a ñëw àlal profit musoo dégg tey Macky Sall woo ci kenn wala procureur autosaisir bu dee opposition bi rek ñoom jóg nañu pour uniquement pour li nga xamante ne pour xeex leen moom muy xam na ko ban camp bu nekk ci Macky Sall Cheikh Omar Anne bañ fa demee di ko contré gis nga ko euh, xale xaalis su mu dëkk Moustapha Diop gars yi di fa dem di ko contrer mu saaga leen buñ demee ba ay far Farba Ngom di tabax ay ay kër yoo xam presque des coups de milliards tey kon xam nga ne tey gars yi fi nekk vraiment bu ñu waxantee dëgg te yàlla tax la ñu séntu woon muy gestion sobre et vertueuse jël alalu réew mi def ko ci askan bi au moins tey jii tey taw bi Dakar taw na Thiès taw na mais forum inondation am na fa te suuf si maroon na maroon na ndox kon war na ne kon gars yi li ñuy wax nekkut dégg tamit ci scandale yi nga xam am ci ministère de l' éducation nationale tey jii fi mu doon tey boo xoolee amul kenn koo xam tey woo nañ la su rapport yi ñëwee moo ko jël xool bi ko ci neex mu présenté ko procureur bu dee pour opposition mu dem Mame Mbaye nag du problème mu personnel moo tax ñuy wax mais tey jii boo xoolee tey liñ koy jiiñ parce que dafa nekk loo xam moom moo war a créer ay emploi pour la jeunesse Macky Sall ne woon ne emploi ci jeunesse bi boobu ba léegi amu fi. kanoo yu ñu def pour créer emploi yooyu ñoom ñu ñoom ñu yàq kanoo yooyu. tey jii jàpp naa ne tey jii nii bu fekkente ne tey transparence ak leeral ak bonne gouvernance waru woon sax exercer waat dara ci fonction ba yoon ñëw setal ko su ko setalee moo xam ne kon moom takkut te jàpp naa ne tey loolu su ko defee moom moo ci gagné askan bu ñoo ci xam ne kon moom mi kat lam daan jiñ askan bi amul lam daan jiñ doomu aadama yi amul moom ci boppam kon moom il n'est pas fautif te jàpp naa ne boo ko dégloo intellectuellement parlant kon li ma la wax tey jii bi mu nekkee ministère euh, euh, de la jeunesse gis ko bi mu demee tourisme gis nga ko amu fa dara loo xam maanaam mën na ko indi xalaat pour tourisme mën a dox donc du du problème personnel entre ak moom mais Macky Sall ci boppam tey ji boo bëggoon jël tey un quincailler Sam Gueye yóbbu ko ci mercerie mënul dem parce que xam lan la xamul lan la ñuy defee mercerie nga jël ko xam dafa dugg ci mercerie wala kuy jaay soo wala kuy def leen nga yóbbu ko ci feneen kon ku ci nekk domaine ba mu xam hmm. da nga ko jël yokk bu fekkee moom nee na c'est un homme du sérail ci affaire moom na dem liggéey AIBD wala leneen te bàyyi bi nga xam parce que lan la jege na Marième Faye Sall te waxoon nañ ne Marème Faye Sall mooy fal mooy folli ku ko neex yaa ànd ak moom ku xuloo moom ku mer moom mu dem jubalaam ak saa ngeen àndaan ngeen dem d'accord euh, ñu ñëw euh, ba léegi ci domaine euh, économie bi la ñuy des ndax depuis un certain temps itam loolu moo nekk au devant de l'actualité su weesoo li nga xamante ne moom moo di mondial bi ndax suul na lu ci ëpp ci actualité bi mhm. mais itam loolu dañu ko occulter ndax fan yëpp itam ñu ngi dégg ci wàllu Air Sénégal SA ci wàllu gestion bi anam gi nga xamante ne itam suñuy ay société yoo xamante ne des sociétés nationales ñu jox ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo di nasaraan si rawatina France ñu koy gérer itam ci anam googu mu mel nii tey dañuy jéggaani suñu ay ñëw dañu ñëw sax di doxal yoon di jël suñuy doom itam di leen dugal ci société yooyu ñu mën a wax mais di leen ci bedd bi ba pare ñu jàpp ne dafay am ay montage financier yoo xam te ne moom moo ci am au profit de qui et de qui on sait pas mais en tout cas ñi ciy gagné ñu ci ëpp mooy réew euh, tugal yi euh, tey ji euh, Bokar naka nga jàngate situation boobu oh, c'est vrai que ñun ñëpp ay patriotes lañu la préférence nationale le président loolu yàgg na ko gëm parce que bi muy wax la patrie avant le parti loolu vraiment lu mu gëm la te il a toujours mis au devant le sens de l'État tey ji dafa am vraiment loo xamante ni boo ko déggee noonu effectivement du la neex ak foo munte di far dinañ jàpp ni ay la yéwén bu réew mi di dox Sénégalais yi ñoo ci war a njëkk gis seen bopp waaye boo demee ay AIBD boo demee tey ji jas wala nga dem fii exactement Diamniadio chantier yi taxaw yëpp la majorité ay sénégalais ñoo ko gañe woon tey jii ñëpp ay sénégalais lañu bu dëgg rek desee sénégalais boo fi gañee marché cent million li muy njëkk def xam nañ ko kat kat lay jëndi takki ñaareel wala ñetteel chantier yi nekk Diamniadio la plupart ay sénégalais ñoo ko moom te mi ngi taxaw Dakar pareil pareil pareil c'est vrai que conscience nationale aussi de ce point de vue des na parce que aussi loolu du lu bees bi may wax nii ñu bëri xam nañ ko moi je travaille dans le privé je ne suis pas lié à l'État mais je sais que ni sa fonctionne comme ça. mais boo ko tey euh, suñ la déggee dafa mel ni tey jii loolu mooy xeeb. doomu Sénégal yi ndax bu fekkee da a qualifié rek ne ku ci am benn marché wu lii lii nga ji njëkk a def lii nga ci def et pourtant la compétence est là tubaab yooyu gën ñu compétent bu fekkoon ne tey jii seen compétence sax wañu wanewuñu benn arrogance bi soo ko xoolee ci problème mu Eiffage bi mu fi xewee seen directeur li mu wax ni mu waxee mooy faalewu ma leen sax à la limite mm. doo leen sama ay interlocuteur et mm. le nouveau directeur de Air Sénégal et ça aussi c'est le pareil comportement tey jii est-ce que loolu xel mun na koo nangu nga ñëw suñu réew ba pare bëgg ñoo noot c'est vrai que tàng boo ko gisee sous cet angle neexul parce que aussi ñu ñëpp ay patriotes lañu mais boo xoolee tey jii la sphère ministérielle bi nekk jam ñaajo ay sénégalais ñoo ko tabax et ils ont réussi ce marché ak ñan ak ñan ñan la donc tey dans le monde la mondialisation ci boppam moo permettre que ni dans n'importe quel pays ñi nga xam xamante ne dañuy am expertise bi te jusque là c'est des appels d'offres internationaux qui sont lancés te lu ci gën a bëri ñi koy gagner dañuy remplir amplement les critères parce que aussi ça se fait dans la transparence donc lu ci bëri dañuy travailler avec des Sénégalais te compétence bi xarañ bi expertise bi ingénierie bi mi ngi fi ci réew mi ngi fi ci réew mi donc ñu xeet suñu bopp si wàllu woowu mais sérieux bi war dans le travail loolu peut-être moo nekk li nga xamante ni tey mooy handicap bi mooy goulot d'étranglement bi mhm. tey jii on parle de croissance certes croissance bi stable autour de six sept pour cent de mais est-ce qu'il y a une répercussion, répercussion on parle de chiffres, mais est-ce qu'il y a une répercussion, répercussion sur euh, euh, le vécu des Sénégalais également C'est relatif, parce que booy xool répercussion wu croissance ci pays ci indice de développement humain nit ki nga koy mën a sentir. Mhm. moom la koy nit ki mën a sentir donc du ñu ko jaawale mais li leer ba leer actuellement nii am nañu un taux de croissance bi nga xam ne mi ngi stable depuis trois ans mi ngi stable mi on dit que nag le profit peut-être ay étranger ñoo ko ñoo ci gis seen bopp si tel est le cas duma ko rafetlu aussi. Mhm. compatriote. tey euh, Babacar euh, c'est la même situation ñu bëri tàmbali nañ koo euh, déplorer peut-être que li tax affaire mbir mi suul lu ci ëpp sax maa ngi koy wax mooy mondial bi ñu nekk. mais apparemment tey suñu demee on a connu Air Afrique on a connu. Sénégal International euh, tey ñu taxawalaal compagnie boo xamante ne suñu compagnie bopp la clause contrat yi ni muy tënkee woon yëpp à ñu dem ba gis ne euh, c'est l'État du Sénégal euh, qui a financé le tout et le nouveau directeur qui se permet ne euh, moom interlocuteur am c'est le président Macky Sall ça s'est passé avec le directeur de Eiffage bi fi problème autoroute bi amee euh, tey jii mu mel nii dañuy jëlaat ay tubaab tegal leen suñu kaw et pourtant la compétence est là ñu yore woon Air Sénégal International ñi ngi fi ñu yore woon Air Afrique ñi ngi fi tant d'autres ñoo xam te ne yeneen dëkk ñoo leen di jëriñoo te ñun mu leen leen jëriñoo à moindre coût te loo xamante ne dina répercuté wu ci suñu vécu. xam nga mooy li ma wax tout mag temps que ni Macky Sall vision bi jëm ñaajo la yem parce que nit ki da nga vision boo xamante ne day englober l' ensemble du territoire national am ay perspectives internationales am une coopération internationale. au moment où tey euh, mois bi ci début mois bi dama xamatul ban date la euh, euh, Kenya ñoom ñu ngi fête seen centième avion Boeing centième te ñu Sénégal amuñu sax avion. donc tey euh, coopération internationale parce que du question dama dama dama far wala dama jege Karim moo tax ma koy wax bi mu fi nekkee au moins bi nga jox la coopération internationale jéem na fexe ba créer groupe Air Sénégal international ñu jéem a ñu am au minimum quatre avions yoo xamante amoon nanu ko mais ba léegi avions yi fu mu nekk ñu demoon fii ñun ak waa Maroc Air Sénégal ñun ak waa Maroc ñu defoon benn. Euh, coalition boo xamante ne ci ci ci ci liggéey loolu partenariat boo xamante ne ñoom li ci ëpp ñoo koy am. kari woo ay sénégalais ne leen ñun dañoo bëgg ñu booloo nekk benn jël suñu àll ñu jënd ay avion pour Sénégal mun ko mun ko am donc kon Kenya raw nañu raw boo xamante ñun bon vraiment métti na ma quoi donc tey jii ni doon nañ ko wax ne leen Macky Sall mi boo leen ko falee mooy candidat France te wane na ko bi mu ñëwee lépp lu français yi defoon fii Sénégal Abdoulaye Wade jëlee leen fi ci anam yoo xam ne ce des partenaires ñoom dafa fexaat Macky Sall dafa fexe ba ñooñu ñëwaat fi yor suñu économie bi ñoo yor courant bi ñoo ndox mi ñoo yor téléphone ñoo yor jaww ñoo yor lépp dañu noot suñu biir tey ji fi mu tey don yi ñu may yëpp xaalis la boo xam ne ñun ñoo ko moom jox leen ko di jënd crédit di jënd essence di jënd lu nekk tey loolu lañu jël dañu ko mën dañ jox ay don kon jàpp naa ne tey jii nii yëpp sénégale yi weesuwul compétence nationale bi fi nekk consommé local bi fi nekk ñu di fi bàyyi ñooñu tey ku la tegoon France 24 nga def journal làkk France yu neex tey bu nu jëloon keneen koo xam ne ci beneen domaine boo xamante en ingénierie tey ñooñu te Sénégal yi partout dans le monde dañ fa nekk di di di fël ci domaine bu nekk ci compétence bu nekk ñooñu am xam-xam boobu te boo gisee ma ne vision bi jam ñaan la la yam Abdoulaye Wade bu mu ay partenaires danaa leen supposons yéen a ngi def wàllu zircon wala yéen a ngi yéen a ngi ñëw ci wàllu domaine sàngam mhm. boo leen ñëw ci dëkk sàngam boo leen demee Longoor Mbay phosphate feeñ na fa na ngeen fexe ba fa defal case de santé defal foofu wala poste de santé wala def fa jàkk wala ngeen fexe ba dafa benn école boo xamante ne da ngeen di jàngal doomu gox boobu doomu askan boobu ñoom bu ñu ñëwee fii ak cinq dix ans bu ñu ñëwaatee dootuñu soxlaa di jële ay expert bitim réew y' a beaucoup de Sénégalais yu fi nekk am compétence mais dañuy jël teg leen fële. Hmm. te jàpp naa ne tey Sénégalais yooyu buñ leen buñ leen buñ leen buuxoon euh, ndax fan yéen gis nga ko ba euh, dama fàtte sax seen quoi seen kii bi lu mu tudd mooy ñoom Babacar Ngom Sedima ñoo ñëpp dajaloo ñi nga xamante ne tey ji ay borom alal lañ nekk Sénégal. ñu ne la ñu dañoo bëgg a jël Sénégal pour mën dem mais ki ñu moo leen du pour mën parce que français yi ñoo ko ngem topp si mhm. marché bu ñëw tey boo xoolee ni euh, Emmanuel Macron bi fi ñëwee jël na ay marché yoo xamante ne looloo fi ñëw pour ay français yoo xam jël nañ ba bi ci mujj mooy terre bi bi mujj mooy euh, lampe solaire yi nga xamante ne moom la su fond roche yooyu donc mu nekk loo xam Macky Sall il travaille pour les Français. d' mais fii quelque temps on va vers la hausse du riz on va vers la hausse des assurances des télécoms pour renflouer les caisses de de l'État tey jii yaakaar nga ne tollooti nañu jamono joo xamante ne sénégalais yi mënati nañu supporter benn yokkute. bon balaa may tontu damay tontu aussi par rapport ak. rapidement heure bi mi ngi bëgg a xocce on a encore euh, benn sujet bu ñuy évoqué parce ni tey jii Karim Wade le président Karim Meïssa Wade. moom la fi monté woon à l'époque Fapal nekkee loolu gis nañu ne aussi c'était des prête-noms yoo xamante ni ça l'appartenait te d'ailleurs ce qui lui a valu tous ses ennuis judiciaires donc ci wàllu woowu façon gestion boobu kooku duñ ko rafetlu du nekk un exemple bu nga xam ne war nañ ko mën a lim mhm. tey jii le président de la République depuis mu nekk président en 2012 ba léegi gis nañu ne quand il y une stabilité ci wàllu denrée de première nécessité yi kooku kenn waxatu parce que pour la première fois aussi dans l'histoire du pays sax yokk yéeg wàññu yeeg yooyu amu fi depuis mu wàññi ko boobu ba léegi prix yi ñu ngi nekk stable nekk fu c'est vrai que tey jii ren pétrole bi am na hausse baril bi presque mu ngi ci ay quatre-vingt-sept quatre vingt dollars yooyu man jàpp naa ni war nañu mun a prévoir aussi que dina am ay hausse donte. mais est-ce que tey pare nañu pour supporter ko. on annonce cette hausse la mais am na hausse yoo xam te ne entrée na en vigueur bu yàgg bu ci mel ni ciment bi quoi qu'on puisse dire président wax na ba sonn le ministre du commerce pare ça n'a pas empêché au à la cimenterie mu ñu augmenter. mais l'État a été ferme ak cimenterie demande leen à ce que buñ ko hausse. mais mu mel ni fermeté boobu ñoom dañ ko jéggi. non xam nga aussi mooy volonté populaire bi. l'État mi ngi mettre tout le temps en œuvre en exergue c'est sa vision ak li nga xam ni mooy doxal réew mi mais citoyens yi tey jii boo xoolee sur la baisse déjà du coût des loyers bi nga xamante ne effective woon na en un moment tey jii delluwaat nañu delluwaat nañu buum ci mboy mboy gi donc loolu du volonté état bi du fautu état bi état bi li mu mën mooy tegal ay mécanismes demande des citoyens yi pour que ñu exécuter. tey su ma la déggee da nga ne kon hausse yooyu c'est inévitable. c'est pas inéluctable parce que aussi l'État peut subventionner à tout moment parce que lépp mi ngi dépendre ci cours pétrole bi. parce que aussi n'oublions pas que ñun dañoo nekk des pays yi nga xamante ne dañu nekk en voie d'émergence. est l'État est dans la possibilité de subventionner si on dit que hausse yooyu c'est inévitable pour renflouer les caisses de l'État donc ce que l'État est en mesure de subventionner ces produits-là pour mu bañ a am répercussion ci Sénégalais L'État vit de taxes loolu on le connaît déjà te la bonne santé financière du pays mi ngi émané wu ci taxes yi nga xam ne moom la ñuy jël à travers bien de consommation yi nga xam ne moom la Sénégalais yi di consommer. d'accord donc loolu bu inévitable tamit vraiment jàpp naa ni l'État fonctionne ainsi. Mmh. depuis lors euh, Babacar euh, mhm. chef de l'État ak entourage am ñu ngi doon ut ay subterfuge pour euh, contourner même bu fekkee ne au sous am na pour mu bañ a am répercussion mais tey jii Euh, si journalu tey tey sax on annonce la hausse du ak yeneen ak yeneen comme ni ma ko cité tey apparemment Bocar di que euh, bu fekkee ne pétrole bi cours bi yokk na ça euh, c'est inéluctable day répercuter ci coût yi mhm. mais tey est-ce que tey réew mi fi mu toll askan wi mun a mënati nañu dékkooti beneen yokkute jóge ci ñoom te feeñul ci seen salaire man jàpp naa ne sax ba tey mbir yaa ngi yokku ndax courant bi tey la gën a cher ceeb bi cher na peut-être gasoil moo am benn tension boo foofu la toll yéegul wàccu euh, mais boo xoolee tey loolu yëpp li ko waraloon parce que bu ñu delloo ci ginnaaw cinq ans six ans ci ginnaaw Ablaye Wade loolu dafa bokkoon ci li nga xam moo ko daane loon mais yàlla jox ñu dëgg ni toog ci télévision un certain Moustapha Lo su ma juumalee ne ñoom ñoo defoon complot commerçant yëpp pour daane Ablaye Wade yokk daane de première nécessité mu metti woon ci askan wi ba pare jamono yooyu crise mondiale amoon partout crise mondiale am bari pétrole bi yëg ba ay cent dollars <coughs> Abdoulaye Wade maintenir le fexe ba Sénégal dugg ci gouta googu kon loolu dañ ko ci dañ ko ci félicité bu baax a baax te tey jii nii tey bu répété waatee Macky Sall kon xam na ni kon askan bi pare da ci moom kon ñooñu nga xam ne ñoo taxawoon tey complot woon pour xeexoon pour xeex Abdoulaye yokk daan de première nécessité te jàpp naa ko du nekk le cas bi parce que engagement yi bëri na des centaines de milliards des milliers de milliards état bi engagé ko war koo yaakaar ci askan wi ñi tey jii courant bi di coupé ba tey bien vrai que tey le plan tàkkal ah, le plan tàkkal bi fi nekkoon moo fi nekkal ba tey tey ndox gi nii ñàkk nañu 2012 bi Macky Sall yéegee korité 2012 nit ñi ci ci ci mar lañ ci mar la ñu woore tabaski 2013 korité 2014 que di ko toog ba korité ba koor gi passé nit ñi ba tey ji am na dëkk yoo amuñu ndox parcelle tey laa fi dellusiwaat bi mu ñëwee fekkuma parcel am ndox kon mu nekk loo xam vraiment askan bi soxla ko te compteur defe naa buy ubbeeku di daw dafa war a marqué mais compteur bu marqué tul su ñëwee facture bu gën a yokk amul koo xamante ne nekkuloo baadoo la. compteur bi compteur gaz la woon. boo ñëwee nga xool sa facture courant yokkul wala sa facture ndox yokkul crédit yi ngay jënd des fois da ngay ñëw jënd crédit li nga ci bëgg doo ko am boo génnee ñu jaay la même boutique yu bees yi fi teg da jëndee fi ñu déclaré benn prix bu nekk ci ci ci ci étiquette boo ñëwee ci kees gi di fay la fay nekkaat mooy ëpp la ñu defoon ci kees gi donc mu ah nekk loo xamante ne vraiment yëpp dafa commencé woon doon yokk ba tey ji day yokk li ma seetlu daal li nga xam maanaam moo fi toog jamono yi muy gasoil bi ak essence parce que li ko maanaam mooy baril pétrole bi moom moo yéegul woon ci jamono yooyu donc mu nekk loo vraiment su yéegee su su dund bu yokk du ma benn parce que mosuma benn mosuma benn ndax saa su ne damay wax maa ngi voyagé saa su ne maa ngi jiitalante ak camion malien yi ma ne le pourquoi ñii di ñëw di jënd si fii carburant ñoom ñu dem Mali mu gën ñoo yombale te Macky Sall mi nekkoon su yéegee dafay fexe ba gasoil bi litre bi nekk trois cent essence bi nekk trois cent cinquante te tey ji tey ji loolu tey rattrapé na mënu ko fexe ba ba dina ko su dund gi yokkee bu mu bett doomu aadama yi parce que Macky Sall engagement yi mu jël ci wetu tubaab yi lépp xaalis bitim réew ba génération fii ak trente cinq ñoo ko war a fay nekk na loo xam tey ji mu dund gu yokkul maanaam li mu doon dig askan du ko mën def parce que il mhm. fallait que mu lépp xaalis pour mën a muucu Sénégalais yi almet bi ñuy jënd ndox mi ñuy fay suukar si yëpp lépp fu mu toon tey ji incha ci kanam tuuti dañu yokkute euh, tey euh, Bokar euh, maa ngi koy wax sànq Dakar enregistré na tey ses premières pluies waaye ci période nawet ñi nga xamante ne moo di suñu mbokku baykat yi si lañu ñu war gën a mën a soobu pour liggéey ci gën a am yaakaar ci wàllu koom geek yi ni mel si euh, jiwu jeeg euh, jumtukaay yi nga xamante ne moom lañ leen di baaxee waaye récemment itam dañ leen doon wax ne euh, un peu au nord ñi ngi craindre benn famine am faak yi ni mel mu mel ni ñooñu seen ay jiwu la ñu mu doon jël doon ko dundee tey ji ban taxawaay la nguur gi fi mu nekk nii fas yéene gaawantu ndax bu fekkee ne da ngay yóbbu jiw yaakaar naa ne waroon nañ ko yóbbu laataan nawet gi di teru waaw c'est vrai que waxoon nañ ko fan yi passé que ni quand am na une certaine famine bu ñu wax ci nooru pays bi l'État mi ngi jël ay matukaayam c'est vrai que baykat yi ñu ngi jot seeni subvention état bi mi ngi bien que des na des na parce que aussi il faut dire que agriculture bi mi ngi sooxe ba léegi donte président mi ngi def ay matukaayam pour que mu avancer déjà ñuy atteindre suffisance ci wàllu ceeb bi parce que presque atteindre nañu plus de mille deux cent tonnes ci wàllu riz bi riz padi bi c'est vrai que aussi ci wàllu gerte gi baykat yi pratiquement seen bon yu bëri fay nañ leen ko donc man jàpp naa ni ça va avec parce que aussi mbiru bay moo aléatoire te baykat aussi il faut ñu assister leen ci wàllu intrants yi engrais yooyu loolu président comprendre na ko boo xoolee ren indi nañu presque mille tracteurs pour jàppale leen mais du aussi dina gën a yokk man-manam parce que lagriculture rek moo mën a booster économie réew mi mm-hmm. te autosuffisance alimentaire tant que atteindre ñu ko mënuñu tendre vers l' émergence. Mhm. tout le temps on nous parle ne euh, taw bi moom moo tax taw bi mais soo xoolee si yenn dëkk yu mag yi nga xamante ne ñoom agriculture la ñu yaakaar ci la ñuy dund ñoom xaaratuñu taw ils des mécanismes tey yu leen euh, permettre tey jii muy noor muy nawet ñuy bay ñuy am ay rendement tey am na ci ñoo xamante ne jotaguñu ci seen jiw comme te ni ma la ko waxee asamaan euh, ibbi na ay vanam tey ji naka nga jàpp ne ñooñu war nañ leen mën a dimbali te autosuffisance bi nga xamante ne tout le koy prôné mun nañ ci àgg ci condition yi. waaw c'est vrai que tey jii ñi nga xam ne jotaguñu seen i jiw dinañ nekk ci jafe jafe-jafe parce que jot nañu jot ko nawet bi dugg na déjà mais nañu jàpp ni aussi pays yu bëree bëri bëri bëri tey jii di dund ci agriculture egg ci. koom-koom bi nga xam ne permettre na leen ñu créer ay prix artificiels ñun pays bi tolloogul foofu tollooguñu foo xamante ni mën nañu créer ay pluies artificielles wala ay pluies saisonnières yoo xam ne dina mën a permettre yenn cultures yi étant entendu que nag au niveau de la vallée l' état mi ngi góorgóorlu parce que irrigation ci wàllu irrigation bi ñu ngi ci góorgóorlu te à travers le PUDC aussi boo ko xoolee piste de production yi ñuy def ak aussi forage yi nga xam ne dugal nañ ko ci àll bi mm-hmm. yooyu yëpp dafa nekk ay jumtukaay l'État mu ngi ko mettre en place pour wàññi au moins au moins problème yi donte nag lépp mënaguñ ko régler d'accord euh, tey euh, euh ci fànn boobu ñu bëri Sénégal nee ñu dañu jàpp ne euh, agriculture suñ ko waxee dañ ko yemale rek ci mbayum euh, ceeb ak mbayum dugub te agriculture tamit dañ ko yemale rek ci période bu nawet mais bu fekkee dañ ko yemale rek ci période bu nawet te nit ki depuis bi noor gi jotee mi ngi mettre ay solam en jachère di xaar li nga xamante ne moo di ay jiw ak si joteegu ci nawet gi tàmbali euh, tey ji ñu naan autosuffisance ndax autosuffisance googu dinañ ci àgg ci waxtu bi nga xamante ne ñu ngi wax famine dans le nord et euh, un peu plus reculé au fin fond du Sénégal. mooy li ma la wax rek ne la Macky Sall vision bi jam ñaajo la parce que avec Abdoulaye Wade defoon na la Guana defee ay bassin de rétention Goana ak euh, Reva. Prodac moo ko remplacé moom laa xam nga tey vingt six milliards yi ñu wax ne moom lañ détourné suñu ko dugaloon tey ci ci mbay mi defe naa ne tey dina soqali ko buñ ko jëloon ay engrais rek kon jàpp naa ne tey béykat yi dinañ kontaan ndax jamono yi presque deux mois yoo xam def naa plus de quatre mille kilomètres Sénégal yàlla xam ne amul fu ma dox gis fa tracteur amul fu ma dox gis fa tracteur romb naa nit ñi di ruuj di di ruuj di préparer seen tool pour nawet bi te béykat yi ku lu njuróo leen vraiment état du Sénégal moo waroon am ay mécanismes yoo xamante ne dafay teg ay programme yoo xamante ne jàppale askan jàppale baykat yi bañ leen di leen nax te baykat yi lépp loo xamante ne bay nañ ko ñu di ko jënd ba tey ji am na ci baykat yoo xam ñu ngi yor seen bon impayé 2016 2017 ba 2018 kon tey ji bu nekk loo xamante ne da nga leen di yërëm parce que ndox agu fa courant agu fa lenn lañ am mooy bay gerte bay dugub bay mboq loolu boo mun mënut a jàppale te fim mu ñoom ñi ñuy jàppale mooy ñi nga xam ne nooy mooy les les le le les les les comment dire les agriculteurs de l'APR ñoom la ñuy jàppale ñoom ci boppam ku ñu jox ah, tracteur APR nga bokk wa illaa ah, benn Babacar Mbaye boo xamante ne APR la bokk am na ay moyens jox ko cinq tracteurs mu dem ci benn dëkk am fa vingt hectares wala trente hectares commencé di bay mu nekk loo xamante ne au détriment des milliers de baykat yoo xamante te ñu ngi ci àll bi demal Longhor Mbaye demal Thilmakha Mbakol demal Vélingara demal euh, Euh, tey ba mu tufoo ak foo mënti dem boo fa demee nit ñi bay yañ doon bay la ñuy bay fas la ñuy bayee wala nag la ñuy bayee ileer la ñuy bayee te jàpp naa ni jamono joom dañuy wax Sénégal émergent jamono joom dañoo bëgg ay programme pour de domaines communautaires agricoles ñu war leen mën a jàppale tey Sénégal amuñu ko mbay mi sooxe na seen bon entrant bon bon pays. mu ngi fi régime bi def donc boo gisee tey ji ma la ko xam nañu une grande offensive pour l' nga xam ne da ngay dem ba am abondance am li nga xam maanaam mooy auto suffisance maanaam mooy bay dundee loolu la ñu war a def wa illa bu fekkente commerçant yooyu baykat yooyu mënuñu leen a jàppale ci li nga xam maanaam moom la ñu def saa ne ñu wutale ay mécanismes yoo xam fexe ba retenir ndox mi nga xamante ne mooy jóge ci jaww ji def ay teen def ay pompe tey vingt six milliards ñaata forage la mën a defal ñaata teen la mën a gas yoo xamante ji jëndale ay panneaux solaires muy ndox mi di arrosé yi di ko def parce que mbayum noor rek war ñu ko dañoo war a bay noor bay nawet bay bay lën maanaam janvier ba décembre ñu di ko bay maanaam xaalis bi am na fi mais dañ ko dugal fañ ko war a dugalee tey Prodac tey buñ bu jaaroon yoon nañ ko bëggee ak nañ ko na mu tax a jóg ñu def communication bi ñëpp xam ne lii am na baax na bu buñ ko defoon ci aska askanu baykat yeeg seen bopp jeunes yi jóge ci jóge ci jóge ci demal à CFA yi lan la leen apporté xam nga donc tey non parce que amul déedéet parce que liñ fa waroon def yëpp dañ ko détourné ci li ñu wax dañ ko détourné donc mu nekk loo xam ne vraiment man dama yërëm baykat du yi à chaque fois dañ nax saa su ne fi mu toon tey jii nii bu élection jub ñu indi leen ay engrais daal leen di jàppale commencé di leen dajale bu affaire yi jeexee ñu fàttali leen bu buñ soxlaa seen voix ñëw seen dëkk riir euh, te béykat amul béykat amul lu marché yoo xam marché luuma la béykat amul lu loo xam soxla ay piste de production te ji boo demoon tey euh, région de Thiès ay ba ngay sàmb li ñu béy ci soble macha allah tool bi bu ko indi fi nga xamante ne maanaam moom mooy ci ville bi problème lay am amuñu piste de production oto yi amuñu fu ñu jaar amuñu ay chambre yoo xam dañuy mën a conserver ay chambre froide yoo dañuy mën a conserver soble bi wala pomme de terre bi wala salade si wala leneen ak leneen mhm. sénégalais yi ñu ngi góorgóorlu baykat yi ñu ngi jéem a góorgóorlu mais dañoo amul ku leen jàppale Macky Sall amul politique agricole boo xam mën na développer le Sénégal parce que dëkk bu développé bu ne ci mbay la dundee ku ko weet laajee yonte yàlla Yusufa dëkk bu développé bu ne ci mbay ak sàmm ak napp ci la ci ci la doxee. ci la doxee euh, ñu ñëw ci beneen euh, point Babacar euh, ñu nekk ci période examen di fin d'année mu amoon ay réaménagement yu indi woon ci calendrier examen yi mais apparemment c'est des réaménagements yoo xamante ne est-ce que dina am benn effet bi ndax suñu gisee ne même c'est comme si c'était la même période la ñuy amal examen yi entrée en sixième commencé na anticiper baccalauréat vendredi vendredi la euh, tey jii est-ce que am nañu élèves am nañu capacité est-ce que def nañu renforcement bi ci war ndax suñu gisee ne année bi yëpp c'était parsemé de grève ndax tey jii euh, on va pas s'acheminer vers les mêmes résultats qu'on a connus l'année dernière bon c'est vrai que ñu ngi ci entrée en sixième ak CFE donc euh, du jàpp ni aussi le cycle primaire jàng nañu année scolaire normal et que gisuñu ci benn quoi boobu ba léegi waaye ci wàllu jàng secondaire ak euh, enseignement supérieur bi c'est vrai que enregistré nañu aussi ay grève mais quantum horaire bi nga xamante ni moom la ñu ragaloon nii laal nañ ko substantiellement inspecteurs yi rassuré nañu la population rassuré nañu l'État que ni quantum horaire bi yàqoogul mm-hmm. parce que aussi enseignants yi il faut saluer aussi leur patriotisme leur engagement parce que daan nañu def ay cours de rattrapage ci week yi bien que ñu ngi nekk aussi en grève te aussi seen ay actions yu bëree bëri ñu ngi ko def au cours des fêtes de Pâques ak des fêtes de Noël parce que lu ci gën a bëri ci période yooyu lañ ko def mënuñu comparer ren ak daaw parce que daaw effectivement il y avait pas assez de grève mais les résultat étaient catastrophiques sa moom loolu am na fi donc ñu tiit ci loolu. mais est-ce que rattrapage yooyu c'était juste pour bourrer les élèves est-ce que la qualité y était parce que tey bu fekkee ne temps bi nga war a jàngale jàngale ko nga jël benn temps pour rattraper cours yooyu yëpp est-ce que du da nga leen koy sëf rek mais qualité bi ci war a àndal pour compréhension bi mu war a àndal mu ànd ci pour résultat yi mën a suivre. lépp li nga xam dañ koy def ci précipitation wala ci taf-taf mën nañ ko bâcler mhm. mais dañ jàpp ni système éducatif bi dafa traîner ay lacunes yoo xam ne daf ko jël depuis bu yàgg muy moo ñu yegg si loo fii mais enseignants yi dans leur conscience effectivement jàpp naa ni résultat wu daaw mënul bokk ak résultat wu ren dara yàqoogu fi donc mënuñu comparer daaw ak ren daaw résultat yi baaxul. Mhm. te grève amul woon daanaka ren nag grève am na mais période bi ñu grève laal donc jàpp naa ni résultat yi warul mën a mhm. yàqu. Euh, tey jii ñu bari dañu jàpp ne c'est les enseignants qui sont fautifs mais est-ce que les responsabilités ne sont pas partagées entre enseignants et autorités. ci fànn boobu tey ak lu mënti am ci wàllu résultat yooyu comme ni ma ko waxee ndax fi mu nekk dafa mel ni dañoo bàkkale mbir yi même bu fekkee ne dañ ne soppi nañu calendrier examen yi mais réaménagement la est-ce que tenir nañu compte itam ci période bi examen di am muy nawet beeg yi ni mel. xam nga man du ma jàpp ne responsabilité partage la ndax état moo dafa war a gërëm ndax état li mu yore enseignant yi dépensé na lu ëpp lool ci ay mbumbaay ay folklore waroon ko defal enseignant yi ma joxe ci benn exemple rek ay jabar ambassadeur gi di leen jox. cinq cent mille francs par mois bàyyi jabaru enseignant wala bàyyi enseignant bi nga xam amul sax cinq cent mille jàngalee Vélingara wala mu jàng Pouta wala mu jàngalee Matam donc mu nekk loo xam tey jii boo demee ci docteur l'état satisfaction yi mu defal benn régime defalu boo demee ci docteur su lu bindee les garab ne benn suba benn midi benn ngoon soo ko naanee naan ba mujj gi mënu toog ñu forcé la ko nar ñaar ba ñaar balaa balaa garab ngay jeex di nga saturé dootoo loolu moo dal xale yi fi mu toll nii te jàpp naa ne xale bu ci nekk boo defee séyi treize ans après boo amul bag Macky Sall la boo defee CP 12 ans après Macky Sall parce que niveau bi dana dem ba dafay wàcc wàcc boo xamante vraiment te loolu yëpp mënoon na ko régler li mu nangu nii à la dernière bi ko nangu à moo tax ma ne leen tout dañ koy ndamoo ci moom. l'ancien régime li mu fi recruté woon si ay enseignants politiques mais les enseignants de ñooñu ñoo salfaañe et système éducatif bi. li nga xam première pour mën a diriger parce que boo ko compare avec le cas de du président Abdoulaye Wade Abdou Diouf Senghor donc moo tax ma ne la actuellement ne élèves yi ci boppam dana métti trop ci ñoom ñu réussir à cent pour cent dana leen buux ñu jéem a ñenn ñi ñu jéem a réussir ñu dem après les conséquences day ñëwaat ci bu ñu defaat examen dans six ans après dans cinq ans après tey jii nawet bi dugg si na xamuloo ndax jour examen bi philosophie bi day taw tey jii bu fekkoon tey. Euh, ñun bi ñuy def examen da doon taw les examens toujours dafa tombé ak nawet mon cher xale yi bu ñu doon gonto ak yenn écoles yi nga xam moo fi ne ak ngelaw luy tey. atanu abri provisoire abri provisoire passé de pour cent à 9 merci beaucoup Bokar heure bi xoj nañu malheureusement Babacar heure bi moom moo ñëw xoj euh, malheureusement mhm. may jaajëfal bu baax Bokar Diong fare ci Alliance pour la République di jaajëfal euh, Babacar Mbaye euh, Mouskad fare ci Parti démocratique sénégalais ma koy jaajëfal bu baax waaye di jaajëfal bu baax Oustaz Assane Diouf mi nga xamante ne moom moo fare woon ci coordination bi du côté de la régie de la réalisation technique de la logistique logistique Cheikh Tidiane Diop ak Isaaxa Diagne ma leen di jaajëfal bu baax di leen jaajëfal yéen ñi safoo leeru jamono wal fajri dig daje alarba bi di ñëw bu soobee suñu borom di leen ñaanal fanaanu jàmm ak salaam te di ko sàkku ci